dama bëgg a delloo njukkal waa Fuuta samay maam waa Fuuta dama leen bëgg a delloo njukkal parce que lu ama am solo la juróom-ñetti at a ngi nii bëri ñu doon ngur-nguri ci suuf naan waa Fuuta dañuy def nett bandum naan waa Fuuta vote ethnique lañuy def wala dañuy topp aveuglement dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy makisal man de bokkoon naa ci ñoo xam ne loolu dama ko teggi woon parce que jàpp naa ni kenn ku ne di yëngatu ci politique fa nga bokk mun nga fa am tuuti vote affectif loolu fépp la ci àdduna fépp la ci àdduna boo demoon Allemagne noonu la boo demoon France noonu la boo demoon feneen ak feneen noonu la vote affectif boobu nag mën na bëri trop mën na yemamaay mën na néew waaye homme politique boo xam ne fa nga sosoo mënoo fa am dara bu yóbboo nga ba politique kon man ma jàppoon ni peut-être dañoo xawoon a exagérer loolu tey nag waa Fuuta googu lenn ci ñoom te ma gëm ñi ni ñu ëpp ci ñoom la ndax bu dematu woon noonu du ñu soxla yëpp ay kaari kaari kaar fii ndakaaru di leen jox ku nekk vingt mille francs pour ñu dem di feesal ay accueil kon ma gëm ni li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fuuta lañ ko xamee woon xamee ko woon waalo xamee ko woon siin xaween ko woon balaw bawol xaween ko woon euh, euh, saalum xamee ko woon Casamance la xamee woon senegal muy jom fulla fayda fit bëgg lu baax bañ tappale loola ma nga fuuta tey te tey la fa gën a nekk waa fuuta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers ñoom ñooy ay sëtu dëgg dëgg dëgg Thierno Souleymane Baal nga xam ne ñépp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li andi la révolution au Fouta te it mooy koo xam ne ay njàngaleem bu ko Macky Sall appliqué woon lii ko dal du ko dal li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur maa ngi invité Sénégalais yëpp ñu liiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo ko ak say mbokk jaay réew mi. jaay doole ku wax nga dóor forcé ne maa fiy toog par force suñ ma tànneeg suñ ma tànn loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind na ko bu ko toppoon lii du ko fekk kon waa Fouta Tamp yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wane nañ ni ñoom ñooy dëgg dëgg dëgg setu El Hadj Omar Foutiou Tall wan nañ dëgg-dëgg ni ñoom ñoom ñooy sëtu almaami Abdel Kader kan wane nañ ko kon ñun ñépp di sénégalais waruñu seetaan ñooña ñépp gis nañ leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu euh, euh, suñu suñu suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale teyit bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yépp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee ak Masamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moom a ngemb te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom ñoom amuñu ci kersa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xam ma waa Fuuta Tampi dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire citoyenne républicain boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy Sénégal tampi du Fuuta tampi li xew Fuuta moo xew Sénégal oriental moo xew Casamance moo xew euh, euh, Sine moo xew Saalum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Njaay gii na ñépp jëlandoo Sénégal tampi buñ ko essayé soppi sax naan dañuy def beneen langue tampi bi la ñuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental tampi soo ñëwee ndakaaru muy Ndakaaru tampi loolu mooy concept bu ama am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a tampi ci réew mi université yi tampi Saalum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ne lii ma nga ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fii ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclater loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem